jaajëfal leen bu baax mbokki internet yi safoo teewlu info 2S TV dal di nag jaamu ci xibaar bi kii di Dame Mbodj nag daal di yëkkite ay kaddu jëmale ko nag ci atte bi nga xam ne dinañ ko attewaat kii di Ousmane Sonko ni ki fukki fan ak ñaar ci weeru décembre moom nag mu xam le ne loolee ay tappale képp moo tax rek ñu daal di ko def ndax nag nee nañ fukki fan ak ñaar yooyee dina fekk nag lii nga xam ne moom mooy wàllum parrainage a jeex waaye nag moom Dame Mbodj nag xam le ne ne kii di Ousmane Sonko moom dina déposer dossier dem fi nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel ak nu mu mënta demee nag mu ne nag moom usmaan Sonko ci période des dépôts des candidatures dina déposé ji foofu nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel ndax nag gisul kenn koo xam ne mun na koo tere bokk ci élection yi ñu dëgmal buñ ko tegee ci yoon nag loolu la xamle kii di conseil constitutionnel nag mënut a invalider candidature Ousmane Sonko nee na nag mënul invalider candidature Bassirou Diomaye Faye ak yeneen i candidat yoo xam ne mi ngi ñëw nag nee na conseil constitutionnel moom invalidé nee na nag li nga xam ne moom la Ousmane Sonko lal nag ñoom mënuñ koo lalli nee na mënuñoo tere kii di Ousmane Sonko déposé candidature ak kii di Bassirou Diomaye fay ak yeneen i candidature yoo xamante ne ñu ngi ñëw mu ne nag ñoom waa système bi nag nañu ñeme rek daal di jàkkaarloog ñoom moom nag mu dem bay xam le ne candidat yi nga xam ne nag bokkoo ci système bi bokkoo ci anti système bi ñooñu nag du ñu am dara moom daa mbooj nag loolu la xamle mu wax nag jëmale ko nag ci caution bi nga xam ne kii ci mandataire bu Ousmane Sonko jafe moon na déposé ko nag nee na loolee nag conseil constitutionnel mënu ko delloo mu ne conseil constitutionnel nag dañoo xam ne ne dañuy joxe ab attestation waaye nee na loolee amut ñoom ab quittance rek la ñuy joxe mu ne nag ñoo tere Ousmane Sonko bokk ndaxte quittance de versement boobee kii di Ayib Daffé jot na cité dem na denc ko loolu nag mooy firndal ne kii di Ousmane Sonko moom mënuñ koo tere bokk ci élection yi ñu dëgmal. di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen abonné wu ci suñu chaîne Info 2S TV ngeen di mën di am suñuy xibaar.